leen lu ñu ñu corriger on a toujours la possibilité de corriger parce que àdduna noonu la la perfection existé wul mais da ngay commencer def benn pas vers l'avant su fekkee ne dem nga ba ci mise en œuvre bi nga gis ne par exemple am na yu sooxe nga parce que on a toujours la possibilité de changer un certain nombre de choses Hein? voilà tey texte les textes sont évolutifs tey jii même boo jëlee suñu code pénal suñu code de procédure pénale suñu code de la famille il y a des articles qui, ont été depuis 1965 bougé Mais mais y a des articles qui ont à plusieurs reprises parce que dans mon but, da ngay adapté ces textes également en conséquence Donc, comme que Sénégal comme que France comme que États-Unis comme que pays bu n'êtes d'après adapté texte en fonction de la des réalités du moment donc loolu non, au moins nañ changé on a des choses qui ñuy wax depuis 1965 mais il est temps que nous changions. Si on nag buñ ko changé buñ ci le président wax dëgg fa yàlla je pense que naa mat gu toll nii dajale na ay nit ñu waxtaan si initiative am encore une fois moom la neex moom la neex voilà kenn forcé wu ko si initiative su ñu paree nag liggéey ba pare léegi loolu na ko jëfee su ko après on verra ce que ça va donner. ok euh, doyen dam lay laaj man est-ce que euh, lan ngay wax ni yaakaar ne le président dafa nek entre le marteau et l'enclume maanaam dafa am ben loi d'amnistie bo xam te voté nañ ko mu effacer li fi amoon deux ba 2023 parallèlement mu am ñu bëri ñoo xam te ñoo ngi laaj justice li xew ci période boobu non est-ce que dina jafe li fi kii mu appliquer ko wala justice rendue pour ñi nga xam ne ñoo ngi laaj pour ñu rendre leen justice malgré que loi amnistie am na ba pare. wa mais xam nga damay am habitude wax ne on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs aujourd'hui def nañ loi d'amnésie loi d'amnésie si ñi ko xam xam li nga xam moom la texte yi wax moo di dafay effacer l'infraction dafay mel ne l'infraction ñaawteef bi n'est censé n'avoir jamais existé conséquence bi mooy lan loi d'amnistie bu ñu ko xasee voté ku nekkoon kaso dañ lay bàyyi ku nga xamante dossier bi dafa nekkoon en nation dossier bi dañ koy clôturer kuñ jàppagul sax kenn du la mën jàpp loolu loi d'amnésie léegi nag loolu noonu boo ko jëlee nga teg ko ci côté bon la nga xamante ne moom dédommagement bi lolu même bo xolé loi d'amnistie bi daf né cette loi d'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers manam ña nga xamante ne yàqule nañ ci ña nga xamante euh, ñak nañ ci peut-être ben cër ña nga xamante seni seni seni parents ñak nañ ci dom et consort ñooñu war nañ leen mëna dédommager te loolu je me dis que ñi nga xamante ñom ñoy gouvernement bi ñi nga xamante ñom ñoy les autorités ñom ñoo mëna ñoo ñëpp ñu jël leen recenser leen daal di leen def ndam jox ndàmpaay bu nga xamante ne encore une fois waxuma ne dina tax ñële ñëw waxuma ne mais au moins dina seral seen xel parce que tey boo xoolee justice sur le plan pénal ñaari aspect la dañ naan euh, l' aspect civil ak bi nga xamante ne moom mooy aspect public bi aspect public moom mooy affaire kaso bi loolu sa dépend du procureur de la république mooy que ni nit ki dañ koy yóbbu kaso et conso je pense que loi d'amnistie bii loolu la effacé que voilà peine bi nga xamante ne procureur moom moo ko moom mën a ñaan mën a demander par à ce que ñu tëj ne loolu moom mooy effacé wu mais li nga xamante ne moom mooy l' aspect civil mooy l' aspect pécuniaire mooy dédommagement bi et consort loi bi da ko préserver loi d' amnistie bi da ko préserver mais nag comme ñun dañoo am habitude kii nii bu ñu koy commandé doma bu ñu koy condamné dommage intérêt dafay fekk ñu condamné ko ba pare ñëw na yow yaa def ñaawteef sangam ba pare doo ko teg ci nga xam ne mooy dommage intérêt mais ak la mais dañ nan ko wa ok kenn mënu la condamné mais la nga xamante ne def nga ko ci ñaawteef il faut que ñu fay ko comme moom nag sa responsabilité n'est plus engagée c' est l' état qui prend sa responsabilité moom daal di fay la nga xamante ne moom la waroon fay ci dédommagement donc je me dis que on coupe la poire en deux ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi nañu recenser toutes les victimes parce que xam nañ ko toutes les victimes ñu def dédommagement et je pense que démarche le président Bassirou Diomaye fay loolu la il y a eu des rencontres yu nga xamante ne nee nañ dinañ def dédommagement dinañ jël par exemple ñoom li ñuy woowee les martyrs nous recenser leen et que nous mën des dommages et ça c'est l'État du Sénégal qui va supporter dans son budget et c'est pour l'intérêt national donc pour moi, ce n'est pas de revenir en arrière cette loi damnistie là daal effacée, beaucoup effacer boo ko également. conséquence le président de la République aura toujours un dossier pendant le premier ministre aura toujours un dossier pendant des ministres de la République auront toujours des dossiers pendant des directeurs des dossiers pendant tu vas faire des choses tu vas remuer la le couteau dans la plaie pour nga pour man amul aies nekk lu nga xam ne moom askan tournons cette page là tournons cette page là allons de l'avant et nañ fexe un nga de li fi amoon doot fi euh, dernière question. je sais que Amour rapport ak qui, le cas de Bah et ak Imam Daou, aspect judiciaire bi ñu bëri jàpp ni ni ay prisonniers politiques lañ am nañu titre ça, les premiers prisonniers politiques si régime Diomaye Faye liñ leen di topé, ñom président euh le premier ministre Ousmane Sonko lañ attaqué no gissé euh, liñ leen di topé wa mais man euh ko xamantene dañ la topé da nga saga ko xamantene dañ la topé da nga diffamé. ko xamantene dañ la topé ne da nga def diffusion de fausse nouvelle man Daouda 2000 mënu la tudé détenu politique. parce que détenu politique moy ki nga xamantene dañ la topé ci ay opinion yu nga xamantene ne da nga koo émettre. sur le plan politique. voilà da ay opinion politique yu nga xamantene ne da nga ko émettre. voilà bu la neexee nga ne ànduma ak Bassirou Diomaye Faye loolu am nga ci droit en tant que citoyen mais su fekkee dañ laa jàpp ci loolu détenu politique nga mais su fekkee ne dama laa saaga wala ma xas la wala ma ŋàññ la wala ma diffamé la am na ay textes yu nga xam ne ci suñu code la nekk moom mooy li nga xam ne moom mooy condamné tey jii ñoom ñi leen toppee principalement ñaari article lañ leen toppee article 254 ak article 255 254 mooy wax offense au chef de l' état 255 mooy wax diffusion de fausse nouvelle diffusion de fausses nouvelles c'est wax nga wax ju nga xamante ne amoo firnde bi du dëgg c'est à toi de prouver que la nga wax dëgg la su fekkee ni dëgg la dañ lay bàyyi purement simplement beneen bi également mooy kilifa dañ ko protéger le président bi dañ ko dañ ko protéger c'est la loi moom moo ko protéger loi Sénégal moom moo ne képp ku nga xamante ne nga le président de la République dafa am lu nga xamante ne dafay sa kaw maintenant interprétation bi nit ñuy def dañ voilà de façon le le le le premier ministre Ousmane Sonko il n'est pas le président mais vous avez ci article vous nga que ni ñaari premier alinéa le président de la république qui ko offensé mais deuxième alinéa daf ne képp ku nga une partie des prérogatives du président de la république protection du président am donc ministre yëpp ci lañ même non en fait aussi il faut que am dafa am sew-sew il n'est pas dit que le président commun nommé rek protection L'article 50 de la constitution le président de la république peut déléguer une partie de ses pouvoirs donc bu la falee ba pare daal di jël ben décret ñoo né la man pouvoir bi man mako amone mais délégué na la ko à partir de ce moment la protection boobu dal si kaw donc on tay da ngay japp ni le premier ministre Ousmane Sonko en plus d'être nommé par le président le président dafa jël décret dal kay confier yenn ci ay pouvoir Donc, il existe koy gis dans les faits aujourd'hui le premier ministre depuis quelques temps da ngay gis ni diplomate mom moom de recevoir alors que c'est une prérogative du président de les diplomates accrédités au Sénégal qui les war recevoir c'est le président de donc premier ministre su qu'il manque de ngi recevoir ça veut dire que le président de la République moom délégué ce pouvoir là à partir du moment où mu délégué ce pouvoir là protection bi nga xamante ne ko protéger le président article 50 nena, article 254 du code pénal nee dañ ko protéger et par conséquent dañ koy et par conséquent ku ko ŋàññi dafa mel comme da nga le président et la nga xamante dañ le condamné pour offenser le président moom lañ lay offensé bo bo bo, boo lañ lay condamné boo offensé te c'est pas Ousmane Sonko bu la ko président joxoon ñu def mu mu mu mu atteindre si mu mu mu couvrir ko président joxoon mu couvrir couvrir je bu ko président joxoon kii mu couvrir ko donc c'est pas offense au premier ministre non c'est offense à une personne bu nga le président da confier une partie de ses prérogatives. d'accord euh, le dans le domaine également problème foncier également le mën a sur le plan judiciaire am na ñoo xam papiers yu leer nañ maanaam am ñu titre foncier ak tout ça alors que. Euh, VDN bi plutôt no gis tous ah, est-ce que yakar nga ni dina régler d'autant plus que ñu ci bëri am nañ seen papier yu en fait euh, tout est question de de de volonté politique nit jël littoral bi da occupé arranger wu ba am ay kayit am na ay kayit am bonne du forme donc loolu kenn mënu ko bañal mais gis nga dans un état bu état titre foncier man. même waxuma la sax terrain bu nekk ci côté bu ma amee terrain ci biir ci biir dëkk bi ci biir penc mi nekk fa dëkk fa ak sama ay sama ay sama soxna ak sama ay doom état bu soxlaa damay ñàkk loolu la ñuy woowee expropriation pour cause d'utilité publique loi yi da ko consacré lenn rek la nga xamante ne moom la war sama diggante man mooy mu dédommagé ma loolu kese lool mais su ko soxlaa damay ñàkk tey jii fii stade Léopold Sédar Senghor nekk ay nit ñoo fa dëkkoon mais c'est des gens yu nga xamante fii lañ dëkkoon ana ñooñu fi ñu moom fi ñu nekkoon ñoom ñoo fa dëkk mais ba état soxlaa dañ leen a déplacé leen feneen autoroute à péage bi nañ ay kër yu bari xam nga avant que ñu def autoroute à péage bi ana dañoo amoon kay dañ leen ñu dem feneen tey ji BRT nga xamante ne moom moo mujjee ñaata kër lañ fi toj xam nga te pourtant ay xam ne amoon nañu ay titre foncier ñu nga xamante ñoom moom seen kër état dafa soxla dañuy jóg la seule obligation mu nga am état da koy am moy mu dédommagé la donc il est pas dit que da nga am titre foncier que de toute façon man du fi jóg déedéet état bu soxla ñepp ñak parce que état moy ki nga xamante mom moñu bol bokk ñun ñepp yi def la seule obligation mon da koo am moy do la yëkkati nga am kayit ba paré ñoo na la demal ci Mali foro da lay jox terrain da do jox la loko loko tabaxé wala au moins mu évaluer lépp daal lay jox ben somme d'argent ba nga xam ne bu la neexee nga cos almet nga tal wala nga defi lenen mais

dañ koo jox fu nga xamante ne loi bi daf ne mënu faa tabax moo day ñàkk ñaar la ñaar la dafa am foo xamante ne c'est des zones non aedificandi des zones yu nga xamante ne kenn waru faa tabax léegi nag bu fekkee ne da faa tabax buñ ko daanelee yow même boo fa defoon ay milliards yow yaay ñàkk doo am dédommagement mënoo am dédommagement parce que yow yaa tabax fu nga xamante ne loi daf ne mënoo faa tabax maintenant ñi may wax ne par exemple dédommagement mooy ñu nga xamante ne jënd nañ fu nga xamante ne war nañ koo mën a jënd légalement tabax nañ fa ba pare état soxla état bu daanelee da lay dédommagé mais bu fekkee ne da ngaa dem fu nga xamante ne yow ñi nga xamante surtout tobagoo zone zone aéroportuaire portuaire mais loi bi loi code de l'urbanisme ne kenn waru fa mën a tabax les gens ña fa tabaxoon dañoo daaneel seen kër anañu ah zone Tobago Tobago gi boo jëlee Ouest Foire ay jamono li ma la wax boobu yàgg na ñun bu ñuy doog a door ay 2000 2001 le gouverneur Sambou mi mais rajaxe woon na fa ay kër yu bëri mooy zone bi nga xamante ne tey jii boo xool exclusive foofu mu nekk noonu foofu yëpp ay kër la dañ ko tap dañ ko daaneeloon ay jamono parce que c'est des gens qui avaient érigé là-bas des maisons jënd foofu tabax fa daa loolu ko waruñu woon ko jënd parce que instant boobu kenn déclassifié ko wu ko woon donc pour te dire dafa am zone yoo xam ne boo fa tabaxee tamit da ñàkk maintenant ki may wax ne pam dañ koy dédommagé mooy dafa am terrain am kayit yu légal bu boobaa buñ ko bëggee yëkkati dañ koy dédommagé mais boo demee jënd foo xamante ne waroo fa jënd tabax fa foo xamante ne waroo fa tabax da ngay ñàkk daa mel ni man ma sàcc téléphone daal di la koy jaay xam nga ak loo ko mën di jënd également bu ñu bu ñu ñëwee da ngay pet parce que parce la voilà parce que da jënd lu nga xamante ne moomu loo ko te waroo ko woon jënd voilà Daouda benn du chaque jour la am Daouda men euh, beneen question bi mooy les licences de pêche gis nañ état

liggéey nga de c'est pas fekk nañ fa zéro rek liggéeyuloo liggéey nga parce que am na vingt cinq milliards yu nga xamante ne fay nga ko ci bor ba équilibrer les comptes ba mu kii noonu la ñuy évaluer nit par exemple ñëw na par exemple tey ñu ñëw jox ko société mu fekk fa vingt cinq milliards bu dem ba ci pandaw ga ñu ñëw di ko di ko laaj mu fekk fa dix milliards kooku dafa perte parce que dafaa fekk vingt cinq milliards daa dafay bàyyi milliards donc perte na milliards donc noonu la xoolee foncier bi xool licence de pêche yi ministère également budget bi nga xam ne dañ leen joxoon na leen ko doon réduction des comptes ñu saytu lépp xool sur quelle base fan la démarrer Bon, ñu def loolu la ñuy état des lieux comme une société publique comme une société nationale non lay fonctionner une société man mii bon, boo ñëwoon par exemple nga confier bonne direction direction gee ma au niveau du groupe Futurs Bon, y a, naa xool lan laa fi fekk. personnel ban laa fi fekk lan laa fi fekk ci matériel lan laa fi fekk nangam ak nangam loolu mooy état des lieux pour que nga xam fan ngay teg sa tànk looy jooyante nga doog ko jooyante donc licence de pêche yooyu noonu c'est normal que nga ñëw nga toog maintenant nag boo demee ba xool ba gis ne par exemple lii moom a fi nekk soo jàppee ne lii kat jaaduwul dama ko war a renégocier moo ubbi ay négociation xool li nga xamante mom la loi tëral pour que renégociation mom mun ko def et je pense que lool nonou nek lu nga xamante ni kenn mënu ko reprocher gouvernement gouvernement bu bess bi nga xamante daf fay question bi nit ñi di gëna xaar moy gestion des ressources naturelles alors la renégociation des contrats posé won nañ ko fi posé wat ko bi biñ gisee Birame Souleye ak ñoom Ngagne Demba Touré dem ci mini sénégalais yu bari ils étaient étonnés gis ni que ni Sénégal amna ay lingots d'or ak tout ça est-ce que nguur bi amna possibilité renégocier yenn contrat yi nga xam ne ni ça concerne les contrats sur les ressources minières sinon est-ce yan yan euh, prox ndoor lañ mën a am pour Sénégal mën a gagné wu ci ressources naturelles yooyu. bon lengo lengo lengo d'or nag du fi guléet. loolu moom nañ ko waaw loolu nañ ko wax nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko wax lengo d'or du fi guléet depuis Abdoulaye Wade ñun ñi nekkoon terrain bi gisoon nañ mu ñu génn lingot d'or daal di wan ne or am na Sénégal du temps de Macky Sall Macky Sall dem na bu yàgg am na ay société minières yu nga xamante ne dem nañ ay Sabodala ak Consol man dem naa fa à plusieurs reprises dafa ay reportage lingot d'or du gulet au Sénégal xam nga pendant très longtemps même boo xoolee le rapport des litières chaque année ñu wax ne y a tant xam nga de lingot d'or yu nga xamante ne génn nañ ko Sénégal donc loolu du gulet ah loolu du gulet il faut le dire il faut rétablir la vérité c'est pas parce que tey ji tey la ñuy doog ko exploiter hors Sénégal c'est ça correspond pas à la vérité lolou yagna maintenant effectivement ils ont la possibilité suñu jappé né li nga contrat pétro comme nek contrat pétrolier comme nek contrat minière yi nga xamante mom moom moo fi nekk minier yi yooyu dafa nek lu nga xamante c'est pas à l'avantage du Sénégal amna une droit ñu renégocier ko lu ci bëri nak li nga xamante mom lañu japp né ne renégociation war nañ fi gën accentuer wu les sociétés minières yi nga xam ñoo nek Sénégal mais pratiquement ay dañ leen jox ay exonération fiscale ay taxes yu nga xamante ne mooy bul comprendre dañ leen jox dañ leen jox ay exonération yu nga xamante ne doo doo doo doo comprendre donc ce qui fait que actuellement ne donc exonération boobu war nañ ko xoolaat xool taxes yi nga xamante dañ ko war a fay parce que en dehors du partage bu nga xamante dañ koy am que ni Sénégal war na fa am peut-être benn 20 pour cent que li am nangam ak nangam mais dañu nekk Sénégal di exploiter des ressources du Sénégal nekk ci territoire bu nga xamante ne bu ñu fa amee buñ fa amé na ay ay revenu dafa am luñu ñu rétrocéder yow mi nek sénégalais di liggéey sénégalais bo fa amé benn koom dafa am lo xamante ne da nga ko wara joxat askam lo bi ñu woo impôt sur le revenu ndegam yow mi sénégalais yow lañu imposé loolu mala ku nga xamante dafa nek extérieur ñew di am koom Sénégal da ko wara rétrocéder tay ñun suñu footballeur yi nga xamante ñu nek extérieur mais la majeure partie li nga xamante dañ koy gagner mais ci caisse état bobu lay dem parce que ay impôt sur le revenu la donc nag dafa normal que ñooñu bu ñu ñëwee di fa exploité di fa am koom war ko di ko yóbbuwaat.

mais yàgg nañ fo bo démé Gambie gi amna na loi am loi accès sur l'information. bo démé ay gana amna ay loi d'accès à l'information. au Sénégal il y a un projet de loi ñun ñi liggéey nañ ci benn projet de loi bu nga xamante sur la loi d'accès à l'information. dem ba nga xamante dañuy wowe ñi nga xamante ne yor l'information information bu nga xamante information administrative information publique dañ dañ leen tudd say assujetti ci projet de loi bi nga xamante ne yow taskatu xibaar soo demee war a war leen jox war a information au nom du peuple sénégalais dañu am obligation ñu jox la la seule chose bu nga xamante ne def nañ ko ci il faut que ñu encadrer ko ba nga xamante ne kiy dem pour laaj ko mu am la qualité pour laaj ko donc yow boo nee taskatu xibaar nga ngay dem di ko di ko di ko di ko laaj mu fekk yow nga remplir les conditions pour nekk taskatu xabaar nga xamante ne boo demee nañ la ko mën jox bon y a une loi qui existe bu nga xamante ne moom mooy régir affaire taskatu xabaar avec la commission de la carte nationale avec la carte nationale de presse malheureusement beaucoup de journalistes sénégalais actuellement ça monte guñu ak et par conséquent même la loi d'accès à l'information ils ne pourraient pas en profiter parce que répondre au parce que loi est dañuy impliqué au Sénégal il y a ce qu'on appelle le droit positif donc il faut que loi yi la loi yi ñoom pour mun pour mun code de la presse depuis 2017 mais ba tay ji ya beaucoup de choses yu nga xamante ken kenn sàmmante wu doon. ça voilà c'est <laughs> surtout les convois alors dans la dernière question la euh, la dernière question ya nga bëgg a bari. ak noonu du chaque jour la ñuy am le doyen de ñun surtout les questions yi nga xamné ni ça touche la justice alors la protection la volonté de protéger les lanceurs d'alerte moko moo c'est une bonne chose. parce que damay wane aduna àdduna buy évoluer hmm? da ngay évoluer and ak moom les lanceurs d'alerte amul lenn lu protéger mais dans certains pays je donne l'exemple des États-Unis y a une loi sur les lanceurs d'alerte Nous avons koy ñu donc c'est une loi qui existe mais aux États-Unis ils ko encadrer le lanceur d'alerte n'est ni rek seul après ñëw daal di sur les réseaux sociaux

à part de ce moment là mënuma koo wax sur la place publique moi am benn commission bu nga xam dañ koy mettre en place moi nga xamante ne man su ma amee kay yooyu damay dem foofu ma jooytu ko foofu ñoo ne directeur bi kat day def li day def li day def li day def ñoo ñu nak daal di jël loolu enquête ba paré mun ko japp lool moy lanceur d'alerte du nek lu nga xam dañ koy bac sur la place publique parce que tey jii boo xoolee même ak Il y a une enquête sur sur sur euh, mu euh, Boeing xam nga bu nga xamant c'est des lanceurs d'alerte ñom ñoo jël les enquêteurs mettre len sur la piste et consorts tay Sénégal su fekkoon dañ né ok au niveau de l'OFNAC amna na comme ni ñuy défé OFNAC non nga ñëw par exemple dénoncer au niveau de l'OFNAC la loi sur les lanceurs d'alerte non lay non lay non non non lay fonctionner on met en place ben bureau d'enquêteur bu nga xamante fofu ngay dem pour joy fofu pour dénoncer fofu pour wax peut-être même sous le couvert de l'anonymat ñom bu ñu defee enquête mëna japp ñi nga xamante ñom ñoom ñoo dem nak selu loolu mais c'est pas que da ngay jóg lo xamal kii nii daal di koy bàcc sur la place publique dem génn sax kër par exemple daal dina ko bàcc dugg biir kii am daal di ay jël ay drone mu dem foofu ay fa c'est pas comme c'est pas comme ça que xam naa ni foofu ñu ñëw incha allah def